ne ministre bi nee na ñi nga xam ne ñooy xale yi maanaam danañu leen si jàppale bu baax a baax journal bi di réew mi quotidien nee na projet accélération économie numérique banque mondiale daan na jox Sénégal lu toll ci 91 milliards bi de la wax ci njëg yi nga xam ne jamono ji dafa yokk ba mara détaillé rawatina korite gi nga xam ne maanaam mooy dëgmal ak li nga xam ne mooy feetu pag yi ndax li nga xam ne mooy ndawal gi jamono ji dafa yokk ba mara na la ndawalu xar gi yokku na ndawalu nag a baax ci ñi nga xam ne ñooy sunu yéen kaay li nga xam ne mooy suukar si jamono ji kenn mënu ko gis ak nan la ñuy def ba suukar li nga xam ne mooy ngalax ji loolu la journal bi de la Tribune daal di dikk moo tax nee na ñi nga xam ne seen loxo jutul seen ginnaaw mënatuñoo nelaw ba yandoor yéen kaay gi di Source A xëy ci docteur mbañi ngoom mi nga xam ne médecin Ousmane Sonko la journal bi nee na moom li ñu koy toppee mooy nekk ci public bi ba pare di faj ci lu jëm ci wàllum privé gi loole la ñu ko toppee moom docteur Mbagnick Ngom ndax dañ na ko yow ci public bi nga nekk te lan moo tax ngay def ay prestation privée journal bi délibération nee nga moomee daan nañu koy may ab liberté provisoire dañu ko bëggoon takkal li nga xam ne mooy bracelet électronique waaye dafa lànk ba tëdd wa na dem kaso moom a gënal ma koy takk yéen kay gi di mi ko di cee xëy duñu xibaar nan ñu avocat yi Ousmane Sonko yi niki démb janoo ak tas ko yi waaye daal dañu alerté ndax ne nañu procès appel bii nga xam ne Mame Mbaye Niang ak procureur def nañu ko loolee li ñuy si mooy fexe ba Ousmane Sonko a bokk ci élection ko dugal ci wàllum politique bi yéenekaay gi nee na avocat yi yi ñoom nag nee nañu procédure bi nga xam ne moom la jëfandikoo ci Ousmane Sonko amul lenn loo xam ne maanaam lu ci baax la te nag dara du ci yoon ñii seen bëgg-bëgg mooy éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la dëgmal te teguñu ko fenn ba tey moom maître ma soxna kan daat nay wax ne keroog bi nga xam ne ñoo ngi àtte Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñooy seede nekk témoin waaye ñaar ñi kenn dégluwu leen loolee maître ma soxna kan di avocat Ousmane Sonko ñaawlu na ko ba fa ñaawlu yam ba tey ci biir journal bi avocat Ousmane Sonko yi niki démb dal nañu ci kaw procureur ndax nee nañu service commandé ci la procureur nekk jamono ji maanaam procureur ay ndigal la ñu koy jox ay ordre la ñu koy jox maanaam mu koy jëfee maître Amadou Diallo di avocat Ousmane Sonko nee na amu fi ndax lépp xam ne jëm na ci a am justice ci réew mi maître Khoureysi Ba daan wax ne projet bii nga xam ne Ousmane Sonko moom la bëggal réewum Sénégal loolee ci boppam jamono ji mooy déranger nguur gi maître Bamba Cissé daan nay wax ne ñii bëgg-bëgg mooy éliminer Ousmane Sonko ci élection présidentielle ndax appel bii nga xam ne moom la ñu def bu ñu si yokkee benn weer Ousmane Sonko mënut a nekk candidat te Ousmane Sonko bundu bii nga xam ne moom la ñu koy def loolee teguñu ko fenn lan moo ko waral ba tey ci biir journal bi moom maître Bamba Cissé wax na ci lu jëm ci mbiri Khalifa salla ak fi ñu ko jaarale woon loole lañ njort ne fa la ñu bëgg a jaar ak Ousmane ngir na xañ ko mu bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ñaawlu na bu baax a baax bi nga xam ne moom la ñuy jël di ko instrumentaliser di dal ci kaw ñoo xam ne ay way politique la yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor xëy di ñu xibaar naa ñu ni ki démb avocat yi Ousmane Sonko yi dal nañu ci kaw procureur maanaam ci kaw parquet bi ba seen xol sedd yéen kaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu Mame Mbaye Niang mi nga xam ne mooy yóbbu Ousmane Sonko fa mbaxana doonee benn daan nay envoyé ab huissier ca bi nga xam ne moom la ko ameel maanaam Mame Mbaye Niang yónni na ndaw ca Ousmane Sonko ngir mu jox ko deux cent millions yi journal bi di Vox Populi xëy yóbbu ñu diwaanu Kayar nee na foofee jàppandi bi nga xam ne moo amoon ci nappkat yu Kayar yi ak yu Mboro yi loolee tax na jamono ji procureur bu Thiès daan na yëngu bu baax a baax ci mbir mi am na lu ëpp fanweeri nit ñoo xam ne jamono ji teg nañu leen loxo yéen kay gi de la xëy di ñu xibaar naa ñu lu yi nga xam ne ubbi nañu ko na ne ñooy primo votant yi jamono ji fees nañu dell ci centre yi yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na ñol-ñol ba léegi ma ngi am diggante Idrissa Seck ak Macky Sall waaye Idi ak Macky ñoom ñaar dañuy jouer waaye naka pion bu bi kan moo koy puusa diggante Idi ak Macky loole la journal bi di Walf Fadjri xëy di laaj ndax Macky Sall dàqul Idrissa Seck Idrissa Seck démissionné wu la ñoom ñaar ñoo ngi jouer yéenekaay gi di L'Info xëy duñu xibaar naan ñu Yankhoba Diattara moom nag dafa wax ne dafa jàpp ne dafa fóote loolee moo tax Idrissa Seck teg ko ay daana te nangu na daan yooyee ndax nee na Idrissa Seck mooy leader ma mooy papam te lu mu tekki tey ci wàllum politique ginnaaw yàlla Idrissa Seck la loolee kàddu Yankhoba Diattara la niki démb la ko xamle ginnaaw bi mu seetee Idrissa Seck yéen kaay gi de la Quotidien nee na bu ci miir bi ndax Yankhoba Diattara dafa wax Idrissa Seck ginnaaw jëlee nga ma ci vice présidence bu parti réew mi li nga xam ne mooy yenu maanaam ma ñëw jébbala sama démission ci ministère bi ñu dénk wàllum sport ndax yow yaa ma proposé woon loolee naqari na ma yéen kaay gi di Direct News xëy di xibaar naa ñu Yankhoba Diattara mi nga xam ne moo jël ab démission ma yóbbul ko Idrissa Seck nee na li tax mu def ko mooy sanction yi ko Idrissa Seck def te li nga xam ne moo yanu maanaa ginnaaw dañu ko faa jële ci vice présidence bu parti Rewmi li yanu maanaa mooy mu jël ab démission ma ci ministère des sports jébbal ko Idrissa Seck Yankhoba Diattara li tax ñu jël ay daanlal ko ci ndoddam dafa wax réunion politique yu parti Rewmi am na si yu bari yoo xam ne Yankhoba Diattara du ñëw ba pare dafa créer am mouvement loolee bokk na ci journal bi nee na njort nañu ne Idrissa Seck dafa sàkku ñu daal di dàq Yankhoba Diattara ci biir gouvernement bi te loolee Idrissa Seck bëgg-bëggam ko ko jamono ji nag li ñu njortu mooy Yankhoba Diattara ci ay bluff la nekk bëgg a anticiper départ am ci biir guvernement bi yéenekaay gi di Le Regard nee na wax ji mu gudd gàtt lii ay caaxaan la démission bi nga xam ne moom la Yankhoba Diattara ne woon moom la defi ci Idrissa Seck maanaam ay caaxaan mënu koo weesoo réew mi quotidien ak le soleil xëy duñu xibaar naan ñu général Mbaye Cissé jamono ji moom la ñu mu nekk semga daa di wuutu Cheikh Wade yéene kaay gi nee na Mbaye mi nag moo nekk chef d'état-major des moom la ko tabb parcours am journal bi di réew mi quotidien dikk na ci général Mbaye Cissé yéene kaay gi de le quotidien xëy duñu xibaar naan ñu général Mbaye Cissé moo jël poste bi nga xam ne fa la général Cheikh nekkoon waaye nag Cheikh Wade ba a